jërë ngeen jëf sunu mbokk internautes yi yéen ñi nga xam ne yéen a nga ci Bawal Info TV yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew mbokk yi nag xam ngeen ne atum deux mille vingt et un ma ngi waaj a jeex ñuy waaj a dugg ci deux mille vingt deux ñuy ñaan bu baax a baax atum deux mille vingt deux nekk at moo xam ne atum naataange lay doon atum mbégte at moo xam ne ñëpp dañuy am jàmm at moo xam ne ñëpp dañuy am xéewal gu saawaan baawaan ñu koy ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ñooy sunu mbokk internautes yi nekk ci biir réew mi ak nekk bitim réew di ñu topp ci Bawal Info TV mbokki nag bu loolu jàllee dañu leen di defal li nga xam ne moom mooy rétro 2021 émission yi nga xam ne def nañ ko ci 2021 bi euh, ci biir atum 2021 bi yépp dañ leen koy tegalaat defal leen genre rediffusion maanaam rétro euh, émission yooyu lañ leen di tegal su ko defee ngeen mën a comprendre xam ne du émission bu bees waaye émission yi ñu def ci deux mille vingt et un bi dañ leen koy tegal benn par benn jërë ngeen jëf woy leen di ànd ak Bawal Info TV. Euh, monsieur Mbodj euh, ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou Khadre di la di nuyu sa auditeur ak sa auditrice yëpp. di leen ñaanal di la ñaanal ñu dugg ci at mu bees mi deux mille vingt ak jàmm yàlla defal leen tawféex euh, indi leen euh, ay sutura ak ay xéewal euh, te mu wuute lool ak at mi nga xam ne moom la ñu moom nekkoon moom la ñuy doog a génn muy deux mille vingt bi. Dame Mbodj yow nga nekk secrétaire général bu CUSEMS authentique nekk syndicaliste bu ñu ràññee ci wàllum njàng meeg njàngale mii waaye nag tey dañu la invité wuñ la en tant que euh, Dame Mbodj mi nga xamante ni moom mooy syndicaliste ci njàng meeg mi mais dañ la invité en tan que Dame Mbodj citoyen sénégalais doomu réew mi ñu wa bëgg a waxtaane lépp loo xamante ni tey jëm na ci wàllum actualité ak euh, yu si aju suñu première laaj rek mooy discours bi président Macky Sall def gis nañu ñu bari ñoo xamante ni ay farandoom lañ nee nañu discours la boo xamante ni bu bu rassurant la maanaam bu dalal xeli la euh, yow lan mooy ci sa ci discours bi ci fond beeg ci forme bi. waaw man de wax dëgg yàlla euh, bi ma dégloo président Macky Sall mu def discours am euh, wute naa loolu xalaat ak euh, ñi wax loolu parce que nag man duma nit koo xam damay parparloo ndaxte faruma ak président Macky Sall contre ma ko ànduma ak tamit benn leader boo xam ne mu ngi xëccoo réew mi. man comme ni nga ma présenté man njiitu syndicat la njiitu société civile la ndaxte syndicat ñoom ñooy ñi nga xam ni ñu ngi ci biir askan wi am seen i euh, liggéeykat leen défendre te kuy défendre liggéeykat aussi da ngay défendre sénégalais yi de manière générale donc man loolu bu ma ko préciser ba pare ma wax ne discours bi ma dégg man wuutewul ci fond bi ak euh, ci forme bi yëpp ak li ma daan dégg ndaxte wax dëgg yàlla président Macky Sall boo ko dégloo muy wax day mel ni président bu ñuy doog a fal la alors que moom juróom-ñetti at a ngi nii moom lañ jox muy dogal ci réew mi ci niñ koy waxee ñoom sax ni euh, moom mooy nommé aux fonctions civiles et militaire moom mooy définir politique gu réew mi ci ni mu war a doxe ci pàcc yépp kon nag kooku buy def discours boo xam ne juróom-ñetti at après mu jiite man jàpp naa ni euh, mébét yenn yi ma dégg foofu ak yoo xam ne wax dëgg yàlla moom mooy les questions euh, yi nga xam ne moom la réew mu nekk di doxe ndaxte kun jox quatre mille milliards quand même boo tabaxul tali tabaxoo ay euh, ay hôpitaux xaw ma looy tabax kon nag euh, ñun liñ doon xaar ci moom mooy mu wone gis-gis bu leer tëralin wu leer woo xam ni dana sellal sunu alal jën ku dénk nga xam ne lépp moom mooy décider ci lim ci war a def kon nag man loolu gisuma ko ci discours am donc du discours man bu ma rassuré bi ma ko seetaanee ba pare dama ne wax dëgg yàlla ñun nag euh, suñu jafe-jafe génn kuñ ci bu dee suñu président ba léegi fii la toll wax dëgg yàlla ñun euh, ak surtout sax di dugg ci ay domaines yoo xam ni ñëpp a ngi doon xool mu ànd ci ay coppite yu leer nañ yoo xam ne ak gis-gis bu leer boo xam ne wax dëgg yàlla réew yi dem yëpp loolu lañ commencé bu ma jëlee benn bi nga xam ne euh, na ci discours am muy li nga xam moo jëm ci wàllum mbay mi parce que président Macky Sall heure bi waroon na xam ne pour réew mi mën a développer mbay mi fokk mu jox ko te mbay moom pour mu jox ko gëddaam du rek jàpp ni mbayum nawet kese lañ war a jàpp mais moom boo xoolee amul benn euh, euh, euh, politique bu mu bu mu teg boo xam ne dañuy indi yaatal mbay mi ba mu nekk mbay moo xam dootul dootul dépendre rek ci nawet bi ak ak taw bi loolu réew yu bëri yi développé seen agriculture loolu lañ def mais beneen bi même mbayum nawet moom nga xam ne ci lañ ci lañ sukkandiku li nga xam ne moom moo cay meññeef nga xam ne bi ci gën a fës mooy gerte gi ku ne gis na ne chinois yi dañuy ñoom ñoo bokk ci réew yu ëpp doole ci mbayum gerte ñoom chinois yi lu ñu bëri ñu bëri xamuñu loolu chinois yi ñoo ëpp doole ci ñi nga xam ñoom ñooy bay gerte ci àdduna bi mais bu ñu bayee seen gerte ba pare dañ koy téye ca seen réew léegi nag dem ci réew yi nga xam ne ñoom ña ngay bay gerte comme ñoom ñu dem jënd lañ lañ lañ bay ñëw andi ko ci seenum réew kon nag moom buy kañ naan mën ta arrêté loolu ndaxte amu ci ay pexe ndax chinois yi dañoo am xaalis moom foofu la ko teg alors que aujourd'hui loolu chinois yi def nga xam dañuy bay seen gerte di ko transformer ci seen réew développer seen industrie loolu lañ doon xaar ci président Macky Sall parce que experts yi nee nañ gerte mën nañ cee transformer lu mat fukki produit ak juróom yoo xam ne gerte mën na ko. kon nag ñun bu fekkente ne ba ca gën a yomb sax mënuñu ko mënuñ cee defar saabu mënuñ cee defar euh, euh, mënuñ cee def defar chocolat mënuñ dara lépp presque dañ koy euh, importer même entreprise yi fi nekk di defar yu mel noonu presque ay produits fini la ñuy indi Sénégal def ci seen i def i label mais ñun loolu jàpp naa ne président bu bëgg a développer réew quand li ñu doon xaar bu ne am na un million huit cent mille tonnes bu ne un million huit cent mille tonnes yooyu fii lañ ko béyee ci réew mi waroon naa man ne un million deux cent mille tonnes yi wala un million trois cent mille tonnes yi daan ko transformé fii ci réew mi mu mu yokkal ñu ay liggéey ba sunu xale yi dootu ñu mbëkk di jaar ci biir géej gi ak ci biir euh, mbeex mi di dem di seeti di seeti feneen fu gën Sénégal kon nag ñun yooyu lañ doon xaar ci président Macky Sall te nekkul ci discours am kon man jàpp naa ni wax dëgg yàlla ay ay farandoom tu nee discours bi doy na leen kon jàpp naa ni euh, ay par parloo rek lañ nekk. waaye njëriñu Sénégal moom président Macky Sall ci discours am ne moom pour développer réew mi moo ko tax a jóg eh, ak eh, vraiment Sénégal jëm ca kanam donc boo benn jukki la rek boo xam mënoon naa dugg ci yeneen. yoo xam ni danañ ci ñëw. wax dëgg yàlla wane na ci. wane wane na ni parewul pour defar defar réew mi. d' accord euh, euh, daam euh, bala ñuy ñëw ci yenn ci ay poñ yoo xamante ni président Macky wax na ko boo xoolee bi muy janoog presse bi ni président Macky Sall tooge woon ak ni mu doon waxee mel ni luy def autoglorification te Sénégal. am jafe-jafey euh, koom am jafe-jafe ba ndaw ñi dem ci mbëkk ak yëpp mais boo ko doon dégg muy wax tey moom da ngay jàpp sax ne sunu taux de croissance ma ngi ci plus de vingt pour cent mel ni que dara firiñeente wu ko yow est-ce que loolu am nga ci benn commentaire. mais boobu kay dama doon xaar rek ñu yegg si ci xam nga damaa tolloon ci discours bi. parce que président Macky Sall ñaari pàcc lay def toujours léegi. 31 décembre depuis ñaari at en tout cas daaw ak ren la ko commencé. day def discours am ba pare. bu vingt heures jotee bu paree discours bi boo vingt une heures jotee wala vingt une heures trente mu woo télé yëpp télé bu ñëmu la ñëw sax mu daat lay napp daat lay tiital ne dina la tëj pour que pour que kenn du wax ci réew mi ku dul moom maanaam 31 décembre daal na ñëpp noppi ñëpp seetaan ko te loolu mbiri dictature la parce que nit ñi ngi xeet yoo xam ni ci dictature lañ ko xamee kon président Macky Sall man jàpp naa li muy def nii chaque année ak boo ci toftalee yeneen yi muy def Euh, ci yeneen pàcc aussi wanewul leen dul moom président dictateur la cest man damay wax mais kenn du fi waxe na ñëpp toog di ma déglu guddi gi yëpp parce que xam na ni guddi 31 décembre dafa am doole ci communication parce que ñëpp ngi toog ci seen salon yi surtout ci ci euh, atum moo xam ne kenn mënta dem ci ay salle di fo kenn mënta daje fenn ñëpp ngi toog ci kër yi taal seen i télé di seetaan kon presse sénégalais yëpp ñu ngi seetaan télé 31 décembre à partir de 20 heures léegi nag mu ne moom bu ñu seetaanee télé guddi gi ba minuit bu kenn seetaan kenn ku dul man waaw loolu bu dul dictature lan mooy dictature donc loolu mooy première remarque bi ma ci def beneen bi mooy ci biir discours bi ñëpp di gis ne doon napp journaliste yi te moo tànn journaliste yo yo mu yóbbu journaliste yo mu yóbbu tamit mu teg leen di leen teg pression ci biir ci biir waxtaan woowu bi bi bi muy def conférence de presse bi nga xam ne kenn ñemewu ko posé question moom nekku ci à l'aise question bu ñu ko posé nekku ci à l'aise commencé fot journaliste bi napp ko pour pour pour di def relance bu paree mu daal di continuer wax li mu bëgg a wax ci benn forme boo xam ni ñàkk a wekk nit ñi la parce que form bi mu doon waxee man bi ma koy seetaan c'est vraiment dama toog ak sama sama waa kër ma ne xam ngeen ni kii wax dëgg yàlla wonewul ni wekk na sénégalais yi parce que ni muy waxee da di wan ni man faale wu ma sénégalais na sax ba naan seen brassard rouge yi ngeen di takk bàyyi leen ko man tax man xooluma ko faale wu ma ko donc maanaam di wane ni eh, moom lijjantiwul sénégalais yi moom ci mbiri boppam la nekk ba noppi moom euh, li nit ñi xalaat ñoom sénégalais yi ak li ñu xalaatul moom intéressé wu xam nga réew boo koy jiite aussi moom moo nit ñi li ñuy wax da ko war a déglu euh, donc réew yu développé yi brassard rouge boobu muy wax bu leen ko takkatee bu ñu ko takkee dañuy wax lu tax ñu takkoo xool nu ñu cee indee ay saafara donc moom président Macky Sall moom ci ci ci comprendre presse dafa gën a woon sénégalais yi man seeni mbir intéressé wu ma beneen bi nag mooy autoglorification boobu ngay wax cest à moom président Macky Sall dafa jàpp ne bilan baax na à cent cent moom dama jàpp ni lépp loo xam ne jafe-jafe la ci réew mi moom lii mu teg moom moom moom mi ngi koy saafara alors que man dama jàpp ni président Macky Sall tegul dara moom pilotage à vue rek lay def ak di def politique politicienne am nay question sax naam journaliste yi teg na leen pression ba yenn question yi nga xam ne ñoom ñoo gën a déranger nanguñ caa dugg wax dëgg yàlla parce que mais wala buñ cay dugg duñ ca dugg nuñ ca war a duggee. donc surtout la question bi nga xam ne moom moo intéressé rakkam ak pétrole bi nga xam ne non la ci procureur bi def. alors que procureur mu la gën a xam ne xaalis bu toll noonu ñu jiñ ko nit wala jiñ ko ay nit moom président Macky Sall moom mu bokkaale ci IGE boobu mu naan mu mënta bañ a bokk ci présidence la république à la nekk de son bureau ñu mën a defar ab rapport boo si moom moo leen ko def loo bi muy doog ñëw ci nguur gi rapport bi ñu def ko président Macky Sall ne jotul ci rapport bi mais loolu kay wax dëgg yàlla relance boobu journaliste bi ko posé question boobu waroon na koo ñemee def. ne ko président mais mais président nee na yow léegi yow rapport boobu jotoo ci woon te yow nee nga la république la IGE bokk te yéen ñaar a dem di mais yooyu yëpp am na ci conférence de presse am boobu ba ma jàpp ni man moom président Macky Sall daal sénégalais yi war nañoo xam ni président bii ñu am euh, bu ñu laxa saayuwul taxaw fi ñu war a taxaw wan ko ni réew mi moomoo man jàpp naa ne buñ ko seetaane ci li mu jëm ci li ma jàngat man ci ci ci de presse boobu mu def après discours bi mooy président Macky Sall ci préparé troisième mandat bu leer nañ la ne. d' te bu ñu taxawul jàmmaar la moom foofu la jëm. d' accord euh, danañu daal di ñëw ci loolu danañ ci ñëw ci loolu ba mu yaatu mais euh, lu jëm ci wàllum Petrotim boobu euh, mënuñu see ñàkk taxaw ndax ci moom ci bi muy wax ak bi nee na juge d' instruction ñi mu wuta jël kenn di ko dugal ci biir kaso bi sans preuve. Euh, loolu la wax ci mbiri pétrole Aliou Sall bi beneen bi tamit lu jëm ci wàllu mu seppi loxoom ci exécutif bu conseil supérieur de la magistrature loolee tamit daf ko daf koo lànk euh, ñaar lan ñaari poñ yooyu lan moo ci sa xalaat. mais li ci sama xalaat mooy ruus rek xam nga man dama nekk yàlla dafa def dama nekk un leader syndical boo xam ni man lii lii def ci dox ci réew mi daf ma intéressé ba ñuy nekk di xeex ak nguuru président Ablaye Wade moom président Macky Sall rencontre yan daan def yëpp da ko daan fekkee man mii dama daan toog mu jël parole ma déglu li mu wax a la place de l'obélisque ak muy Daniel Brottier muy fu mu munti doon foo xam dañ fa doon dajee di wax ni nguuru bi lii ni ni muy doxee nii Sénégal dañ ko war a soppi moom président Macky Sall dafa d'accord woon ci ni euh, li li tax euh, réew mi mënta dem mooy la séparation des pouvoirs moo amul li américain yi tuddee checks and balance system cest à bi. am assemblée nationale bu am doole bu am si moom mooy législative moom moo xam moo koy contrôler ba noppi justice justice également donc ñoom ñu am doole muy ñetti kuréel yu am doole yi contrôlente mu ni li muy contrôler justice bi nekk euh, moom euh, ki nga xam ne moom mooy seen chef ñoom ñoom magistrat yi ñoom procureur yi pourquoi mu nekk seen chef parce que procureur moom moo koy nommé mais magistrat yi tamit ku ci nekk boo bëggee am promotion pour dem ci benn juridiction bu am doole moom moo la fay yóbbu kon nag léegi nit ki bu ko wóoree moom kii moom moo yore moo yore ay teraangaam mais su deful lim bëgg da ko fay jëlee léegi nag ñu ni woon nañ seppi loxo président de la république ci ci ci ci ci magistrature suprême bi bu ko defee ñoom seen biir ñuy falante seen biir loolu bu ñu ko defoon mais bal ma joxe benn exemple rek bu simple buy wone loolu xamul tax proviseurs yi ak principaux yooyu ragaluñ président ragaluñ kenn boo jëlee école yi rek loolu firnde la léegi école yeeg provli euh, euh, ak ak ak ak ak faculté yi boo jëlee université yi les facultés nga jël mooy ñiy jiite fi ñuy jànge boo jëlee université yi faculté yi euh, ña koy jiite wala nga jël proviseurs yi wala nga jël principaux yi ñooñ ngay dégg noon kenn kenn falu leen seen i seen i ñoo leen di fal loolu moo tax bu ñu leen fa falee kenn mënatu leen faa jële benn tant que defuñu lu tax ñu war leen faa jële mais loolu tax dañu ragal kenn dañu def seen liggéey normalement waa mais looloo tax nag loolu lañ ko wax ne na seppi loxoom ci biir justice bi. d'accord bu defee biir ñoom magistrat yi. am une république des juges parce que man d'accord ma ci une république des juges parce que loolu tamit beneen forme de dictature lay andi. d'accord mais loolu président Macky Sall d'accord na ci avant mi nekk président de la république. d'accord lu tax tey ñu que président Macky Sall leen ñuy wax waxet dafa bari yi mu waxoon d'accord ci avant muy jël nguur gi lu ci nee na moom d'accord ci alors que pourtant loolu xam nga doon andi l'indépendance de la justice. da doon andi magistrat yi di doxal ci loo xam ne duñ ci par parparloo yow gëm nga ne buñ amoon justice bu baax dina ñemee dossier bu mel nii kenn yóbbu ko tribunal juge bi ni moom du ko yóbbu pour ñu àtte ko parce que nee naa leen ko wax doyu ko man nee naa leen ñun nag buñ nax sax suñu bopp ba mu defee appel à témoin gis nga ba coow lu jógee procureur bi moom day def appel à témoin dem def conférence de boo de presse boo xam ne ca biir nam waxee ca conférence de presse ba sax woon na sénégalais ni man lii ngeen def nii gëw ko parce que dañi waa ku am lu muy wax daal na ñëw wax ko sànni loxo yi ni moom gisul kenn ku fi am information bu tax ñu mën a topp kenn ca conférence de presse ba mu jeexee laa ne gars yi bu leen sonn procureur bi pare na ci dossier bi. d'accord appel à témoin bi da koy def pour la forme a wax a jël lépp sànni fa la def daal di daal def non lieu. d'accord ni moom gisul lu tax. ñu war a topp euh, frère président de la république dama dama gëm ne dossier boobu li koy leeral mooy ñoom ñu jóge ci nguur gi parce que amul délai de prescription parce que lu réew mi la y a pas de délai de prescription qui entoure cette cette question donc alalu réew mi la man li ma gëm mooy bis bu président Macky Sall ñàkkee nguur gi te damaa gëm ni fégal na xaw ma ndax daan ci ñëwaatam ndéet ndéet ci troisième mandat moom bu jógee ci réew mi boobu keneen wuutu ko ki koy wuutu su ñëwee day jël dossier mu tegaat ko ci table ji ñu jaarale ko fi ñu ko war a jaarale euh, euh, ñu ñu ñu càmbar ko ñu dem procès procès bi kan moo ci am responsabilité bu dee moom moom moom président de la république parce que man gëwuma ay président fi nekkoon kenn waratu ko woo man gëwuma loolu président ni kese la képp ku luubal alalu askan wi dañ laa war a woo parce que alalu askan wi moom ko ba koy ba ciy def lu la neex donc man damaa gëm ne dossier boobu kii wuutu. président de la république Macky sale da ko war a ci table ji. bu ko defee ñu waxtaanee waat ko ñu justice bi euh, juge ko ñu bañ a jaay kenn doole nag. ku ci nekk ñu vraiment ñu def un procès équitable ku ne war a défendre défendre. ku ñu war a chargé ñu chargé la ku war a andi say preuve say preuve juge bi atte ci dëgg képp koo xam si luubal na alalu askan wi mu delloo ko askan wi su ko mënta delloo ñu tek ci tek ci moom loxo parce que loolu la réew di doxe bu ko defee ëllëg kenn dootu ko fi ñemee def mais jël dossier ko man gëw ma loolu parce que dama gëm ne bu ñu ko defee keneen ku ñëwit loolu lay continuer def te loolu bu ko réew mu koy def du jëm lu dul ci gën a suux gën a euh, nasax gën a dellu ginnaaw. man loolu mooy sama position ci question boobu maintenant. Euh, pour euh, vraiment li nga xam ne moom mooy question yi nga xam ne moom moo liiwu ak yeneen yi aju ci loolu. dafa war rek ni moom président Macky Sall moom intéressé li ko intéressé rek mooy na continuer di nguuru na continuer di di def li ko arrangé parce que moom jàpp na ne réew mi réewam la maanaam ci dictature la koy diriger moom yoonam nekkul ci li nit ñi kontaan wala nit ñi mer. d' accord euh, mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi ñu invité Dame Mbodj euh, ñoo ngi invité nag en tant ku nekk ci société civile bi ñuy càmbar euh, li am ci deux mille vingt bi ñu génn ak discours président Macky Sall bi Dame ci biir discours bi wax na ci li nga xamante ni tey nee na. dafay euh, teg benn euh, benn parquet financier benn parquet financier boo xam ne daal euh, ngir lépp loo xamante ni rek képp ku def ay luubal rek parquet financier boobee daal mën a dox mbir yi waaye gis nañ mu ñëwoon teg fii OFNAC daan ne OFNAC pour ñi fi nekk la ñi mu àndal mais gis nañ ne OFNAC googee dafa mel dañ koo jéng yow parquet financier boobu mu wax lu si sa xalaat. man parquet financier bi <coughs> dégg naa sax ay membre opposition bu ci euh, bu ciy wax man euh, waxtaan naa ceeg koo xam mi ngi ci biir opposition bi euh, même avant discours président de la république bi ma déggee mu njëkk ko wax man dama jàpp ne loolu ñàkk xam la gis nga parquet financier du mooy mbir mi xam nga luy mbir mi mooy ñu keccat pré loxo ñu génne ñu seppi loxo président de la république ci ni sunu justice su réew di doxe tant que defoo loolu parquet financier ak leneen loo fi mën a def du dox parce que boo buñ ko buñ ko defee tamit ba léegi te procureur booba président de la république moo koy nommé moom bu deful li mu bëgg da ko fay jëlee ku ne gis na ni président de la république en en en en plein procès changé na fi ab procureur ñëpp gis nañ ko fi ci CREI bi ñu nekk ci biir biir procès bi ñu toog a jàng na ko yow mii sax di jiite yow procureur bi nekkatoo ko président nee na dindi na la parce que wóolootu la. waa léegi <laughs> kooku kay wax dëgg yàlla ku ci yaakaar ñu def ab parquet financier boo xam ne dañ naan léegi bu ko defee alal ji ku ko amee da lay da lay mën a topp te da ngay mën a fay li nga mais loolu du wax man li ma gëm mooy liñ war a xeex ñun waa Sénégal mooy bu ñu euh, ndax sunu bopp réew yi nga xam ne am nañ justice bu am doole yépp président de la république ba mënta imposer lu ko neex su ngeen gisee Donald Trump aux États-Unis bi élection yi jàllee mu yuuxu fu ne. am na ko ne moom mais président euh, Donald Trump lu tax mënta def comme président Macky Sall ma ne ko non président Macky Sall ak euh, président Donald Trump yamuñu de Donald Trump réew mu am doole la nekk moo xam ne président bi contrôlé wul juge yi juge yi li ñu ci dara moom showam bii muy def ma ne ko showam bii muy def incha allah buñ demee ba 20 euh, janvier à midi incha allah dootul añeeti ca ca palais ba pourquoi parce que États-Unis noonu lay doxee juge yi dañoo am doole président bi contrôlé wu leen loolu moo tax séparation des pouvoirs am États-Unis mais président moom yaa contre le yow juge bu ne ba ba ba nga koo jëlee ci juridiction ba muy jiite mu ne ñoo nañ def parquet financier man gëwuma parquet financier xam nu ma gëm ñu seppi loxo président de la république bii nga xam moom mooy mooy buur moom mooy bummi ci biir justice Sénégal tant que loolu réglé wuñ ko yeneen euh, coppite yu ñu fi mën a def tamit du dox parce que ñooñu fay nekk war koo doxal moom moo leen di nommer te su leen nomee ci poste suñ ko defalul li ko neex wala defaluñ ko li mu bëgg da leen fay jëlee andi keneen. d' accord loolu moo tax man jàpp naa ne loolu du dox. d' accord man loolu mooy sama position ci parquet financier. d' léegi euh, ñi nga xam ne tey boo xoolee ñoom ñooy ñoo dem ci géej gi ci émigration clandestine bi euh, ba faatu euh, président Macky Sall wax na si nee na bëri na ñoo xam ne ñooy dem ci géej gi ñàkkum xëy taxul ñu dem ci géej gi dañoo bëgg a dem dem te ministère. de l'intérieur ci xibaar yi nga xamante ni am nañ ko ñoom ñu wax ko ñoom ñoo ne ñi dem ci géej gi yëpp ñi si ëpp ay mool lañ te mool yi euh, émission bi ma si def ak ñoom li ñu wax mooy dañoo dem ba amutuñu lu ñu napp ci biir jën biir géej gi ndax jaay nañu géej gi bateau étranger yi ñoom ñoo ne saax ci biir géej gi di yegg foo xamante ni tey fukk fu waruñu faa yegg ak di yàq seen matériel yi président daal moom dafa jàpp ne en gros dem ci géej gi du ñoo xamante ni ñàkkum xëy moo tax ñu dem nee na tamit gouvernement bu Sénégal dina xar tànk tubéyam ngir ndaw ñu am liggéey ak jigéen ñi euh, lan moo ci saxlaat ci point boobu. waaw looloo bi ma dégloo président Macky Sall wax ci wax dëgg yàlla dama ci rus quoi ndax dëgg yàlla nag euh, président nag man damaa jàpp nag ñun ay dof lañ teg ñun sénégalais maanaam discours bu ko neex rek mën nañu koo loo jàpp ne ñun gëm nañ ko que bon voilà wax na ko rek après jàll ci leneen mais wax dëgg yàlla loolu mu tontu foofu moo lay wan ni ñun. Euh, ñun suñu réew ñun juum gin juum ba jël ko koy xalaate noonu ñu jox ko suñu réew mi mais juum bu rëy la mais euh, ku ne xam nañu wax dëgg yàlla euh, comme ni nga ko waxee mool yi ñoom ñoo ëppoon ci ñi doon mbëkk parce que géej gi du ko jóg ñeme cee dugg xam nga loolu la sénégalais ñu ngi naan ñoo dem pour deewi mais ñoom danoo ñemee dugg ci parce ci géej gi lañ ne ñoom mool yi moo tax dugg ci gaal yàq yomb na leen mais dañ daan dugg ci gaal di wuti wuti wuti jën bu neer ci tefes gi jaay seen i jën daa dem euh, dundal seen njaboot mais bu ñu demee ba bu ñu deelee seen carburant def ci biir gaal gi dem dem ci biir géej gi bu ñu fa defee ñaari fan ñetti fan wala des fois sax weer ñibbisi si du ñu mën a am dara bu ñëwee dépensé leen të mais ñooñu dañoo dem ba mu jàgg gis lii amatul njëriñ léegi nag c'est loolu li ko waral ñëpp xam na ko dañoo jël suñuy licence de pêche ñu dem wanteer ko tubaab yi wan wanteer ko espagnol yi wanteer wanteer ko français yi wanteer ko chinois yi mais ñooñu ko wanteer. di laaw loo xam ne ñoom mënuñu ko laaw parce que ñoom pêche industrielle la ñuy def ndax dañoo am xaalis am doole ñun sunu mool yi kenn jàppalewu leen ay pêche euh, artisanale la ñuy def moom la ñuy wax gaalo looco ci gaalo looco yi lañuy dugg bu ñu toppee ci ginnaaw euh, euh, pêche industrielle maanaam gaal yi nga xam si ñoom ay ponkali moteur la ñu yore ak yaatuwaay goo xam ne mën nañoo laaw lu bari mais bu ñu toppee seen ginnaaw duñ gis dara parce que jën yëpp ñële laawaale nañ ko moo tax moom maa ngi ko dégg moom président Macky mu naan jën ya ñee di laaw ñooñu loolu Sénégal mënu ko laaw parce que profondeur lañ nekk loo loolu moo li waxuñ loolu loolu boo dégloo acteurs yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci biir euh, ci biir euh, ci biir euh, ci biir napp gi muy waa GAIPES muy ñu munti doon boo laaj laajee dañ naan la effectivement li vrai problème bi mooy euh, ñooñu mu jox licence de pêche yi dañuy laaw jën yooyu ñu diggee Sénégal ba noppi laawaale lu ci bokkul léegi yebooy sax mënatoo ko am ñooñu dañuy laaw bay laawa laawaale la yebooy yi donc loolu moo tax loolu moo tax wax dëgg yàlla réponse am boobu mu joxe moom président Macky Sall man daam mboj doyuma li mooy euh, li ñu war a def mooy ñu arrêté di wanteer suñuy suñuy suñuy licence de pêche parce que jën yi les ressources halieutiques réew yëpp yi ko am xam nañ ni ci kanam tuuti presque day jeex léegi ku ci nekk yaa ngi fexe nooy defee euh, euh, benn benn benn benn benn benn benn programme boo xam ni da ngay fexe sax ba boor bii la ñuy nappe beneen boor bi ñu ñu ñu xaar kenn dootu fa napp pour que defee ñu def ñu def reproduction des espèces loolu loolu la réew yëpp di actuellement Sénégal nag yoonam nekku ci léegi nag gis nga loolu moo tontu gis nga euh, immigration euh, immigration clandestine bi maanaam xale yi dem di mbëkki ñu bëggee saafara ko benn comme euh, mool yi bëri nañ ci dañuy fexe ba ñoŋal seen liggéey ñu bàyyi suñu licence de pêche yi ni yi yi ñuy jaayee ay prix yi ñuy maye presque dañ koy maye ay ñoo xam ne ñoo nu ëpp doole kooku dañ ko war a arrêté beneen bi tamit man li ma gëm mooy dañ leen a war a jàppale renforcer le secteur. yokk seen i jumtuwaay ba ñu am ay ay ay ay ay ay ay bato yoo xam ni war nañoo mën a def seen presse correctement organiser leen sous forme de de GIE autre ba nga xam ne état Sénégal moo ci def alal ju doy sëkk ju tax xale yi mën a toog fii ci ci sunum réew ñu liggéey am fi seen teraanga ba doot ñu dem di dem di yéem a mbëkk ci géej gi. beneen bi. Ah. mooy que ni man damaa gëm ni liy régler problème mu mbëkk moomu nga xam ni euh, moo ci ëpp mais am na ñeneen ñu ci bokk te amuñu xëy moom nee na ñii ciy dem. danoo am seen xëy waaye dañ koo xeex xëy man doon am mu xëy moom moo moo moo tekkeetul dara actuellement parce que nit ki bu amee xëy te mënatu la joxe dépense am correctement mënatu la mënatu la euh, fay lo loisam mais bu yàggee day dem yoonam donc ñuy wax ne dañoo am lu bari mën dem loolu amul fii gisaguñ fi benn magistrat wala benn ministre wala benn euh, euh, député bu dem mbëkki mais parce que am nañ lu doy mais dañoo am loo xam mën nañ ko koo suturloo moo tax demuñu mbëkki. waa léegi li tax ñuy mbëkki kay kon bu ñu mbir mi du problème mu euh, métier bi ngay def mais li ngay métier bi ngay def ndax yaa ngi ci am dara lu tax nga mën a suturlu donc président Macky Sall tontoom boobu doyuma léegi nag gis nga tontu ban lañ doon xaar ci moom am na question bu ko fa laaj ne ko sa conco bi nga ci yenn dossiers yi teggi ko gis nga concoom boobu moom mooy jafe-jafe Sénégal président Macky Sall moo jël concoom teg ko ci ñi nga xam ne dañoo sàcc suñu àll ay milliards lan sàcc boo jëlee rapport OFNAC rapport yi OFNAC déposé rapport yi IGE déposé rapport yi Cour des comptes déposé rapport yi nga xam ne moom la organe de contrôle yi de manière générale ñoom ñëpp déposé boo leen jëlee ay milliards yi milliards yi milliards la yoo xam ne kenn xamul nu mu toll bu ñu réformé woon justice bu mu génn ci loxoom ñu bàyyi justice bi mu atte ñi nga xam ñoom lañ tuumaal alal jooju képp ko luubal bu dee immeuble la ñu def enquête ba gis immeuble ñu jaay ko dugal ko ci keesu réew mi bu dee da ngaa génne suñu xaalis yóbbu ko ci beneen paradis fiscal ñu dem topp la ba yegg sa paradis ba nga denc suñu alal ñu nangu ko andi ko ci keesu réew mi bu boobaa dañuy am alal joo xam ne buñ ko investiree xale yi dañuy am xëy bu ko defee investissement massif yooyu ñu nar a def ci alal jot ñu sàcc te jëlloo si ko nga xam ne teggi nañ loxo ki leen jàppale woon bu boobaa xale benn dootul génn Sénégal di dem parce que ñu alal jin am ci sunum réew doy nañu pour ñu mën ko investir xale yi am liggéey kon gis nga fi mu nii la vraie question bi nga xam moom la ñu war a teg ci table mooy ñu am njiit yoo xam ne yërëm na Sénégalais yi nga xam ne njiit moo xam tëddee na njaaxaanaay du làq kenn képp ku luubal suñu askan ci nga loolu suñ ko defoon bu ñu defoon loolu ba nga xam si ku luubal alalu askan wi dañuy jëm teg la ci yoon bu boobaa dañuy dem ba kenn dootul sàcc suñu alal léegi nag Sénégal gis nga bu ñu demoon ba corruption bi wàññeeku ba kenn dootul sàcc alalu réew mi. bu boobaa lépp lu ñu bëgg def mën nañ koo def maintenant problème bi donc mooy la la la forme de gouvernance bi ñu am au Sénégal nga xam ne président de la république bi fi nekk moom ay nitam bu ñu luubalee dara du leen ci fekk ña nga xam ne ànd ñoo moom bu ñu luubalee mu napp leen pour ñu ñëw ci moom jàppale ko ci politique bu ko defee mu bàyyi mu sedd lii moo tax alal ji ñi nga xam si moo génn kenn xamul nu mu toll ñi ànd ak moom ak ñi àndul woon ak moom fexe na ba ñu ànd ak moom ndax di leen a xoqatal bu ko defee bu ñu leen xoqatalee ñu ragal ñoom ñëpp ñëw ànd ak moom bu ko defee mu ànd ak moom di politique parce que moom li ko intéressé moom Macky Sall du développer Sénégal li ko intéressé mooy na continuer di jiite ci intérêt ak intérêt France. leneen intéressé wu. d' accord euh, yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM euh, lu jëm ci wàllum euh, bala ñoo ñëw ci ñetteelu mandat bi lu jëm ci wàllum élection locale yi laaj nañ ko ko. moom mu ne daal bala ñu koy organiser il faut que euh, fichier électoral bi ñu ñu ñu auditer ko ba ñu auditer ko ba pare euh, mel ni moom kese moom moo xam euh, kañ la koy organiser te ñàkk respecté li tamit li nga xam ne mooy calendrier républicain bi ci wàllum élection locale gis nañ ne yaatu na lool beneen bi tamit ma ngi taafantaloo dialogue national bi nga xamante ni tey ci wàllum fichier électoral bi ñu bari jàppatuñ ne. Euh, ñi nekk si dialogue national bi sax amati nañ benn légitimité ginnaaw ba mu fa bàyyee dialogue national bi di ruumandaat ci suuf doon waxtaan ak Idrissa Seck ak yu ni mel euh, lu jëm ci wàllum élection locale yooyu ci discours bi lan moo ci saxalaat. waaw man de euh, de tout temps dama gëm ne président Macky Sall li mu doon woote noonu ci dialogue national bi du lu mu gëm d'abord foofu laay départ te loolu xew après te nga lim ko sànq mooy combine bi doon am ak deal bi doon am parce que moo ko waxal boppam. deal bi moo ni deal amu fi ba xam nga kenn laaju ko ci biir conférence de presse moo ni deal amu fi dañ doon waxtaan mais yow yaa ngi ubbi ay waxtaan officiel ci ay salle yoo xam dañ fay toog di waxtaan ñu tànn koo xam moo ko jiite parti yëpp ñëw ñu ñu bëgg ñëw parti ya bëgg ñëw ya loolu doy ñu dem ñoom doyul nee na ñoom demuñu woon mais ñan doy ña nga fa woon léegi ñuy waxtaanee foofa yow ngay waxtaan ci suuf yow président bi ak keneen koo xam ne ma nga biir waxtaan woowa loolu rek kay doy na ne yow mii wax dëgg yàlla eh, loo waxati sénégalais yi ñu gëm ko ñoom des na ci ñoom wax dëgg yàlla léegi nag muy waxtaan ci suuf moom ak keneen ka nga xam ne moo jëloon numéro deux ci élection yi bañ mujj déggoo ñoom ñaar eh, kooku génn fukki weer ak juróom lañ doon waxtaan ma ak moom te dialogue bi sax matul loolu dialogue bi sax matul fukki weer ak juróom donc ñoom ten waxtaan sax jiitu woon na dialogue bi waaw kooku kay wax dëgg yàlla mbir mi frenkolaayu na kon nag ñun lan jàpp mooy président mac Sall dialogue bi da ko woote woon pour pour pour mbubbal li mu bëgg a def rek maanaam dialogue bi moom baye boo euh, euh, ñu xam ne féete na boor moom moom pare na ci da koo waxoon noonu comme ñu ko ñu ko ñu ko ñu bëri waxee woon à l'époque man bokkoon naa ci ni man gëwuma dialogue bi parce que dialogue bi lu muy lu muy lu muy waaj la rek pour euh, vraiment benn objectif bu muy am pour diviser l'opinion diviser l'opposition te loolu réussir na ko euh, en partie même si par ailleurs comme on dit les appareils même bu leen diviser sénégalais yi ñoom ñi ngi toog di xool bu système électoral bu transparent amee bu vote amee ñëpp daan xam ni sénégalais yi duñ nit ñu ñàkk fayda. waaw mais est-ce que mais est-ce que mais est-ce que élection dina fi am fii ak 2024. voilà mais ci loolu bu amee euh, bu mu ci mën a am te élection yi jaarul yoon amul benn njëriñ gis nga président Macky Sall xam nga lu muy préparé. hold up électoral xam luy hold up électoral élection boo am jaar yoon. gis nga élection boo xam ne fichier électoral du mos a jaar yoon parce que fichier électoral bi man gëm naa ne amul benn transparence bu ci am parce que bu ñu ñuy voté mais président Macky Sall bu dee moom moo ëpp doole du lim na ba ni juróom-ñaari élection fi amagun Sénégal 2012 ak léegi juróom-benn yëpp maa leen gañe benn rek laa du lool la wax waa léegi bu dee benn rek la gañewul kon moom moo ëpp doole mais luy tee mu jël fichier électoral bi. jox ko ay euh, nit am ñu indépendant lañ ministère leen l' intérieur ak ñëpp dem taxawee ne ñooñu dem càmbar ko génne lépp ñu jox leen les données statistiques du Sénégal lépp ñu xool ko wax ne ku ci nekkul dindi na la ci ku décédé dindi na la ci ku ci war a nekk ñu dugal la ci ba lépp jaar yoon fichier bi un mu jaar yoon bu ñu audité bu ñu amee un audit international du fichier ba fichier bi jaar yoon ba pare ñu daal di ñëw jël ki xam ne moo war a organiser élection yi ñu jox une structure indépendante bu am si état du ko contrôler parce que man dama gën a sekkee man maa ëpp doole kay waruma ragal koo xam si moom day ñëw organiser élection yi te man du ma fa sax nekk parce que man façon bu jaaree yoon maay gagné mais loolu doo ko nag nga ne man maay organiser élection yi kenn du ma ko jox kenn te man maa ëpp doole loolu leeru donc man li ma jàpp mooy que ni président Macky Sall élection yi ak date bu mën a am du jaar yoon ku ne gis na élection yi ñu génn ni mu ko gagné 58 pour cent yooyu man damay waxaat sama baat ca kaw président Macky Sall mënta am 58 pour cent au Sénégal. élection yi bu jaaree yoon dañuy dem deuxième tour mais élection yee jaarul yoon moo tax mu gagné au premier tour loolu laa gëm bu ñu xoolee de tout temps au Sénégal depuis 1960 élection bu mu sa am c' est l' électorat bi am si mooy nekk plus de cinquante pour cent des voix c' est la région de Thiès la région de Dakar la région de Diourbel ñetti région yooyu amul benn élection boo xam ni boo boolee seeni du ñu am cinquante pour cent yu teg tous ren. mataluñ sax 48 pour cent ñetti région yooyu parce que dafa saboter le fichier ñu bëri ñu nekk ci boor boobu voté wuñu mu jël région yoo xam ne amuñu ay nit ñu defal leen ay vote yoo xam ne mus ta am depuis l'histoire du cent 1960 ba léegi région yooyu mu gagné moom largement mus ñu am nombre d'électeurs bu toll noonu donc kon man jàpp naa ne élection yooyu jaarul yoon kon nag élection yooyu comme jaarul yoon man li ma gëm mooy ñu organiser élection yi 2022 wala deux mille vingt trois wala deux mille vingt quatre bu ñu ko mënee rek ñu mun la fexe ba système bi ñuy teg pour ñu voter mu jaar yoon bu ñu delloo ci élection da leen di gagné loolu moom tax il faut opposition bi xam ko bu ñu naïf bu ñu demee ci élection yoo xam ne leerul ak date bu ñu ko mën a def bu dee système ba ñay voté leerul ka koy jiitee euh, vote ba tamit leerul te comme ni ko waxee sànq justice bi moom la àndal parce que moom moo leen di nommé man jàpp naa ni système boobu bu ñu ci demee élection ak moom day gagné. d'accord donc leer la xeex bi. du nag ensuite date bi datu élection pourquoi président de la république jàpp ne moom rek mooy xam date bi mais réew yi nga xam ne dañu respecté seeni citoyen mais la calendrier électoral dañ ko teg mu leer jour jours am war a am sax fii ba deux mille cinquante xam nañ ko mais Sénégal président bu fi ñëw daal toog ni man datu élection yi xawma ko ay intérêt di def ay modification bu ne ba ba ba pare ci loolu xam nga instant bi président Macky Sall am na lu ma dégg mu wax ko ci suppression ville mais boo ko dégloo muy jéem a layal suppression ville yi sa xol bi day jeex tàkk mais cest moom parce que dafa ragal euh, perdre dans certaines villes bu nee Dakar maa koy gagné at mu ne élection local élection local président en exercice pour mu gagné ko Dakar lu jafe-jafe la lu jafe-jafe moo la moo gën a xam ñëpp bokkul ak élection présidentielle élection locale pour mu gagné Dakar moom président de la République moo la gën a xam ne mënut a nekk presque mënut a nekk c'est c'est-à-dire moom il est parti pour perdre la la capitale te loolu du moom rek président yëpp am problème boobu dans les dans les capitales. d'accord waaw léegi. moom cohabitation bi mi ragal mooy ñu dem élection parce que li nit ñi fàtte du Dakar kese la ragal président Macky Sall c'est vrai que jarbaatam euh, euh, xaw ma cousin moom mooy jiite la la la ville de Pikine. Euh, d'ailleurs sax man pour la première fois ma gis réew moo xam ne président bi jiite réew mi ville fa nekk euh, euh, bu bu ndee ñett la wala ñeent ñaar yëpp moom kenn ki rakam la ah mooy mbokk deretam keneen kiy jabaatam la mais c'est extraordinaire quoi ni ñuy defee népotisme dans ce pays donc moom Pikine googu nga xam ne moom tey jii cousin ou jarbaatam moom moo koy jiitee muy Timbo mais ville ville de Pikine boobu ñoom bu ñu defuloon ay pexe dañ ko gañe parce que foofu dañ fa perdre ils avaient perdu c' parce que dañoo am ay pexe yu jaar ba gagné la ville de Pikine donc xam na ne bu demaatee élection day ñàkk ville de Pikine bu demee élection day ñàkk ville de Dakar te même géejawaay bi dina métti lool ci ñoom actuellement loolu moo tax nag mu xam ne bu naree ñàkk capitale bi cest les villes de la capitale bu ko naree ñàkk da koy jaral mu supprimer ko bu ko defee loolu féete boor loolu la ci bëgg en réalité de fa ragal a ñàkk les villes. parce que mun na ñàkk Pikine loolu c'est très clair parce que élection passée bu ñu jël nombre de voix yi kese président Macky Sall ëppale wu fa ci conseil yi la ko jaare pour pour pour récupérer la ville de Pikine c'est la euh, Dakar moom daf ko ñàkk mu leer nañ waaw donc nag man dama jàpp ni président boo xam si yow pare woo pour wujje kenn actuellement wujje googu mu nar a wujjeeg Dakar sax yéenewu ko opposition bi parce que xam na ne bu ñu demee day ñàkk maintenant nag comparé wu pour ñuy am un maire ku ne gis na doole Khalifa Sall. ku ci nekk xam nga ni moom président Macky Sall dafa ragal ku kuy kuy kuy wujje ak moom bañ na ko ba kuy wujje ak moom dana la def ñaar yi dana la xëpp wala mu xëpp la xëpp wala xëppaate rek la fi nekke daal di jël suñu alal di ko euh, tege pression ñoo xam ne day ñëw ci moom wala mu xam lu ñu def mu teg leen pression pour ñu ñëw ci moom wala wala mu jël décret dem tëj leen wala mu jaar ko ci justice pour ñu tëj leen. donc man dama jàpp ni euh, président bu mel noonu. wax dëgg yàlla li muy wax bu fekkente ne doy na sénégalais yi man Dame Mbodj man doyuma donc li ma gëm mooy système électoral Sénégal dara jaaru ci yoon calendrier bi dafa waroon am un calendrier bu stable boo xam si fii ba deux mille cent mën nañoo xam fan kañ la date euh, élection bu mu ci mën a doon d' accord naa nag ñu regrouper yenn élection yi parce que élection yu bari yi ni nii pàcc pàccee day tarder réew man loolu d' accord naa réew mu ndaw ñun duñu réew yu yu mag yi comme ay ay États-Unis ki France mais man jàpp naa ne calendrier électoral bi bu ñu regrouper yenn élection yi dañ ko waxtaane regrouper leen mu nekk calendrier bu stable boo xam président bu fi mën a ñëw doo ko mën a sotti. d' loolu laa gëm ne moom mooy tax réew mi nekk ci dal. jërëjëf euh, Dame Mbodj yow yow nga nekk syndicaliste tey ñu invité la en tant que nekk société civile bi euh, ci émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM laaj bi ñu lay laaj tamit mooy lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi lan moo ci sa xalaat ndax président Macky Sall. Euh, daa waxu ci lu leer tey ren jii tamit euh, waxu ci lu leer te Sénégal yi bëgg nañu see am lu leer ndax li nga xamante ni tey mooy réew yu bari bu ñu tàkkee jafe-jafe élection moo taal réew yooyu te mbir mi nag euh, li ñu wax lii raam sa ñag bala jëm te bu fa amee kër du du baax moo tax euh, réew lu jëm ci wàllum élection war na leer ci ci askanu Sénégal muy ay ay ak yu ni mel mais dañu gis daal ne lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi Macky Sall euh, daf ci lànk ba ñuy wax ci lu leer ci ci ci wàllu woowu yow lan moo ci sa xalaat ak ban taxawaay nga jàpp ne moom la ci askanu Sénégal war a amee su Macky sàll ñëwoon ne dafay sampaat ndëndëm daam. waaw d'abord damay wax ci loolu mooy damay départ rek ci li nga xam moom laa gëm ci li constitution bi wax constitution bi li wax dafa leer nañ constitution bi waxul durée mandat nombre de mandat bi la wax ci ndax ci ci li ñuy waxtaane ni dan nul ne peut ab euh, exercer deux mandats consécutifs c'est-à-dire nit mënta am ñaari mandat yu ñu toftal maanaam yu ànd nga boole ko ba pare teg cee ñetteelu mandat loolu lañ tere c'est-à-dire boo xasee am ñaari mandat noo caa teg ñetteelu mandat donc président ma Sall am na ñaari mandat maintenant ñi ànd ak moom di ruube maanaam bii mandat juróom la woon bee juróom la bee ñu mu jukko def juróom-ñaar moom nee na juróom-ñaar la woon mais juróom la ko mu def yooyu yëpp loolu waxi ruube la maanaam mandat yi moom bi ñu fay juróom-ñaari at lañ ko faloon moom mu ni moom juróom-ñaari at yi avant muy nekk président la ko dige ne moom bu nekkee président juróom-ñaari at yi dina ko wàññi ba def ko juróom booba bëgg nañu fal ko te loolu rek moo lay won ni war askan wi weesuwu ko parce que wax jooju mu wax ne moom bis buñ ko falee day wàññi juróom-ñaari at yi tax na peut-être ku mel ni man mii wala ku mel ni yow moom wala keneen keneen votel ko pour bëgg mu wàññi ko parce que ñun sénégalais noo jàpp ni juróom-ñaari at daa bari mu dem falu ba pare ni moom day àggale juróom-ñaaram mais ñu ñu sénégalais yëpp ni noo garaawul leen ko mu àggale mu àggale juróom-ñaari atam ñu pare ca mu ñëw xëccoowaat réew mi ju euh, euh, muy muy juróomi at moo moo ñoo ñu falaat ko ko même si pareer wax naa sànq ne man falaata boobu gis naa ne ay ay ay ay njuñ njaaj bari am na ca pour mu wat waa léegi mu falu ñaari yoon muy fukki at ak ñaar yoo xam war na jiite na ko Sénégal mais président Macky moom fukki ñaar fukki at ak ñaar sax yi ñu jiite daa bari léegi mu bëgg caa tegaat yeneen at yoo xam ni constitution moo koy tere constitution bi moo ni mënoo tegaat beneen parce que ñetti mandat xam nga da coow li dafay amoon ci jamonoy Abdoulaye mu ànd ak moom président Macky ñu nekk. à la place de l'obélisque di ko xeex en 2011 président Macky Sall euh, ni toujours bu ñu daan jël parole bu daan jël parole ni ñetteelu mandat bi bu ko naree def ci sunu ci sunu kaw lay jaar dañuy tax ci sunuy cadavre lay jaar mais duñ ko may am ci bis doom sax même gàddoom la ëndaale waa léegi ñuy xeex loolu ni kenn du laal suñu constitution léegi président euh, Abdoulaye Wade xeex ba ne ba def troisième mandat ñu gañe ko moom mu ñëw nekk président de la République ne serait-ce que par décence wax dëgg yàlla wur woon na indi sax débat boobu au Sénégal maintenant léegi moom donc loolu lay def léegi moom bu demee président bi ñëwaat tamit def loolu kon ñun kañ lañuy am ñaari mandat encadré ko mu mu mu mu leer alors que ñun dañ ne woon à travers la nouvelle constitution moom bi mu andi que verrouillé nañ moo ko waxal boppam Ismaïla Madior Fall mi nga xam si mooy tailleur constitutionnel am taxaw na ne deux mandats consécutifs fa la mën a yem kenn mënut a yokk troisième mandat ñi mu àndal ñëpp wax ko moom président Macky Sall moo ko fépp tey discours am bi mu def 31 décembre dañ ciy rus. parce que moom ci boppam leer na xam nga Sénégal dañ naan waxu ci lu leer xaw ma lu ma gëm mooy président Macky Sall wax na lu leer xam nga léegi lu mu wax mooy à travers li mu wax le 31 décembre mooy dëggal na ni moom day dem xëccoo ji troisième mandat loolu man loolu laa ci jàngate ci wax ji en en filigrane comme on dit en français en filigrane ça apparaît dans ses propos de manière nette et claire que le président Macky Sall pare na pour xeex ak sénégalais pour dem defi troisième mandat man loolu laa gëm maintenant ban taxawaay lañ ci war a am ñun Sénégal yi parce que loolu amatuma ci sikki sàkk man que moom day dem xëccoo troisième mandat amatuma ci benn sikki sàkk maintenant léegi li des ñun lan lañ war a loolu du fi parce que nag mun ñoo may parce que ñun 2011 ñun dañoo àndoon di man ci société civile bokk naa ñi xam xam nañ ni dama bokkoon ci ñi taxawoon 2011 di xeex pour que troisième mandat du am Sénégal donc euh, loolu ñu defoon. man pour man moom la ñu war a dàbbaliwaat mais dàbbaliwaat ko ci yeneen forme xamul tax parce que président ba fi nekkoon ak bii sax yamuñu parce que président bi dictateur la kon man jàpp naa ne dem dajaloo place de l'Obélisque comme ni mu ko waxee ci brassard rouge yi nee na brassard rouge moom ragalu ko jërul nit ñi ko def parce moom xoolu ko sax waaw léegi kon man li ma jàpp mooy euh, bu ñu dem di toog ay ay place de l'Obélisque ki yooyu di def foofu di def ay rassemblement di wax waxi kese actuellement li des pour que président Macky Sall ñu contraindre ko xam ne fégal na. ñaari mandat la mënoon a am loola constitution bi jox fégal na le vingt quatre euh, donc le euh, en deux mille vingt quatre dañuy am président bu yees incha allah loolu man jàpp naa ne li mu laaj mooy ñu taxaw xeex ak moom xeex bu wér man d'accord ma ñuy def rassemblement yi à la place de l'obélisque rassemblement yi dañ ko def à la place de l'indépendance à deux cent mètres du palais de la république c'est dajale fa sénégalais yi woon ko yow réew mi mënatoo ko jiiti jeex na yow da amoon dañ la dañ ñun ñoo la faloon def nga fi fukki at ak ñaar moom nga fi moom moom lañ la prévoiral sa mandat jeex na mënatoo nekk candidat mu leer nañ avant ñuy dem élection yi te bu ñu bàyyee ba mu jege nga maa ngi ko yëgal opposition bi ko yëgal société civile bi parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk suñu seetaanee ba élection yi da six mois wala cinq mois ñu seetaan ba boobu leeraluñ ko parce que clarifier le débat du mandat. dafa nekk une exigence républicaine c'est-à-dire une exigence de démocratie parce que xamul tax mbir lu muy def lu muy dem lu muy def da koy waajal kon nag heure bi la ñu war a régler la question du mandat d'accord maa ngi ñu parce que président Macky Sall moo naan leen léegi yéen bu ci kenn wax toog leen rek ci may déglu léegi man heure ma ci waree wax naa ci wax xam nga loolu loolu c'est extrêmement grave comme déclaration wala ñun dañ koy seetaan ba mu ne cinq mois mu jël ay saaram teg ci mbedd mi dootuñu am temps bi ñuy may ñu xeex ak moom pour du nekk candidat Euh, problème mu mandat bi léegi lañ ko réglé ku fi xaar ba mu des quatre mois cinq mois nga bàyyi ko mu déclaré candidature am la xew Côte d'Ivoire moo fi nar am on aura des morts inutilement. pour bu ñu bañee am ay morts il faut empêcher que lii mu bëgg a def am fii te léegi lañ koy commencé bu ko defee ñu taxaw poser la débat du mandat pour mu leer parce que États-Unis xam nañ fii wa deux mille cent ban date la ñuy def seen i ex euh, seen seen i te xam nañ ni président bu falu. boo amee ñaari mandat munoo am ñett waa lu tax ñun mun ñu am loolu. France am ko keneen am ko Afrique gii ay Cap Vert am ko Mali am ko Mali Mali gii sax am na loolu léegi ñun Sénégal duñu am loolu ñu taxaw di seetaan naan nañ bàyyi. ba ba mu jot kañ lay jot heure bii la jot. heure bii la ñu war a régler la ah. question du mandat. jërëjëf. Euh, waaw donc man. waaw euh, vraiment et ci li may daaneele ci li may daaneele ci loolu. Euh, suñu xoolee moom bi mu ciy wax wax dëgg yàlla. Euh, da nga da nga da nga da nga sax sur euh, la la la question parce que am na journaliste bu ne ko yow sa parti képp ku ci wax rek nga daaneel ko mën leen ko non non du du loolu parce que moom li mu tere ci parteem xam lan la dane bu kenn wax ci question mandat bi du loolu la wax léegi moom ku ci wax ni ko yow président Macky Sall mënoo am troisième mandat mu daaneel la képp ku ci wax ni ko yow man ngaa am troisième mandat mu gën laa doole loolu kay leer na moom kay kon terewul ku ci wax xam nga lu mu tere. xam nga ñu bëri dañ naan président Macky Sall day tere ku ci wax déedéet terewul ku ci wax xam nga muy tere ku ci wax danañ am troisième mandat mais képp ku ci wax ci parten ne ko président man nga am troisième mandat am na sax ci parten ku fi wax bane na am troisième mandat sinon nan génn jaas yi ñu xeex du am na ku ko fi wax amul député bu fi taxaw ne président Macky Sall am na droit am troisième mandat te ku ko tere dinañ génn soon jaas yi ñu xeex ak yow du loolu la fi wax kooku luñ ko def dañ koo gën a may doole. ñoom ñëpp dañoo génn seen communiqué di di wax waxi kasaaw kasaaw alors que ñeneen ñi nga xam ñoo wax ni mënta am troisième mandat dañ leen a daaneel kon nag man wax dëgg yàlla pour man sénégalais yi nañ bàyyi tappale bi xoolal président Macky Sall li muy wax leer na nañ il a déclaré euh, qu'il est candidat à euh, à troisième mandat loolu leer na nañ fi mu toll nii ci bopp sénégalais yi ku ku bëggul mu leer sa bopp na parce que leer bi du question lu muy wax kese nit li ngay wax ci ni nga koy waxee ak euh, manière baag yëpp day compter loolu lépp dañ koy analyser. léegi nag bu ñu xoolee donc en filigrane day apparaître dans son discours et dans ses faits et gestes que le président Macky Sall a déclaré sa troisième candidature à l'élection euh, mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi ñu invité Dame Mbodj secrétaire général CUSEMS authentique euh, dañu ko invité nag tey wax naa leen ko sànq invité wuñ ko en tant que syndicaliste bu yëngatu ci wàllum njàng meeg njàngale mi mais xam ngeen ne ci société civile bi la bokk te am na taxawaay bu am solo ci réew mi léegi euh, bala ñuy ñëw ci. question bi nga xam ne moo jëm ci wàllum UNESCO mbirum góor jigéen gi nga xamante ni président Macky Sall wax na ko ci lu jëm ci mbirum góor jigéen gi nga xam ne tey yow bokk nga si njëkk a def déclaration mu nekk déclaration boo xamante ni sénégalais yëpp jot nañu si ñu bari tamit daan nañu koy euh, daan nañu koy rafetlu bala ñuy ñëw ci loolu benn question boo xamante ni rek boo si mënee wax lu mat deux minutes ndax tey président Macky Sall dañoo gis ne bi mu def euh, discours bi ak bi mu jenoog taskatu xabaar yi dafa am benn confiance ci moom ñenn ñi jàppee ko sax ne dafa xaw a yëg boppam xaw a xaw a beew ci ni mu doon waxee est-ce que jàppoo ne kilifa diina yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñu si bari ànd ak moom taskatu xabaar tamit journaliste yu baree bare bari groupe de presse ñu tuumaan leen ni leen ñii tey bu ñu demoon bu pënd bi wuri euh, du ñu fara ji askan wi dañuy dem fara ji ak ak euh, ak moom ndax jàppoo ne ndax ñaari yooyu yëpp ma la wax dañoo am doole cim réew muy presse muy kilifa diine yi est-ce que jàppoo ne ñooñu ko mel lu ko xaw a jox loxo euh, wala ñu leen koy tuumaal du moo tax muy wax di mel ni koo xamante ni daal moom lum lu ko neex mën na koo def te dana ci génn lan moo ci sa xalaat daam. waaw man de wax dëgg yàlla euh, damay wax ni kilifa diine yi des fois ñu euh, tuumaal leen loo xam ne sax wax dëgg yàlla du seen rôle xam nga nañu waxante dëgg rek kilifa diine rôle am du opposé wu ak état euh, parce que réew dafa am nu ñuy doxee aussi parce que Sénégal aussi ina ne ñu jël li nga xam ne moom mooy sunu facteur de stabilité ñu bëgg koo sànni ca àll ba parce que su ngeen xoolee ñu bëri dañ naan Afrique réew yëpp am nañ fi ay soulèvement yu andi ay mort yu énorme Euh, wala ñu am benn euh, bain de sang alors que Sénégal bokkul ci réew yooyu bon may wax ni loolu euh, c'est parce que ñun aussi am na lu ñu am yu réew yooyu amul kon man pour man bu ñu ŋàññi suñuy kilifa diine parce que kilifa diine yi nekkuñu fa aussi pour di taal réew mi maanaam na ñoom li ñu man mooy askan wi ñoom ñoo jël seen i responsabilité man gisaguma kilifa diine yi askan yu taxaw fi ñu war a taxaw di xeex ñu bëgg leen a empêcher ni du ngeen ko fi defee kon nag man pour man ñoom ay régulateurs sociaux lañu kon ñoom ni leen bëgg a defloo loolu mënuñu ko parce que tey jii bu kilifa diine yi déggoo woon seen biir ni na président bi génn ci pale bi parce que warut am troisième mandat yooyu position politique yooyu suñ ko defloo woon kilifa diine yi dañuy wàññi sax seen dayo kon man pour man loolu du seen rôle réew ku ci nekk ak sa rôle man li ma jàpp mooy kilifa diine yi même bu ñu leen ko dee tuumaal loolu du seen rôle ñi leen koy tuumaal dañoo desee xam lan mooy rôle kilifa diine yooyu kon man damaa gën ni kilifa diine yi ñoom fi ñu war a taxaw ñi ngi fay taxaw li des kay mooy ñun askan bi est-ce que jaral nañu est-ce que ñun ñii nga xam ni ñun am nañ position yooyu ku ci nekk ca pàcc ba nga féete muy société civile muy muy kuréel yi muy parti politique yi muy sénégalais lambda tout court maanaam képp koo xam da ngaa nekk citoyen sénégalais ne ci réew mi am fi intérêt ci réew mi jaar yoon donc ñooñu ñoo war a taxaw parce que ñoom yoruñu posture bu leen di te ñu ñëw taxaw ne président de la république na yëf yi doxe nii wala na doxe nee kon nag man jàpp naa ne ñoo war jël seen responsabilité beneen bi nag mooy journaliste yooyu ngay wax journaliste yi aussi su fekkente ne am na ñu ñuy tuumaal ni ñoom nguur gi lañ àndal aussi àdduna loolu yàgg na fay am mais loolu même bu amee bu askan wi jógee journaliste yi duñ ci mën dara parce que réew moo dem quand du Sénégal kese boo demee États-Unis presse bi dañu diviser wu en deux parties dañu am la presse pro démocrate ak la presse pro républicain donc ñaar ñaar yooyu moo am presse boo fa jël États-Unis am na fu mu far kon sunu presse réew mi tamit am na ku ci ne foo far. d'ailleurs président de la république boo xoolee ci ci ci discours am à la nation ci ci conférence de presse bi mu def après le discours gis ngeen ni am na euh, ay groupe de presse wala au moins ab groupe de presse boo am si ñëpp d'accord nañ ne quand même xel mënoon na nekk xel mënoon na nangu mu fekkee waxtaan wa mais dañ leen a écarté tout simplement parce que ñoom nguur gi dañoo jàpp ni groupe de presse boobu dafa radical dafa radical ba mu ak ñoom kon ñam fa woo la jàpp ni ñoom ñoo gën a am position bu bo bu bu bu bu bu ko jege. donc xam nga kon loolu loolu message bu leer la même si par ailleurs man vraiment naqaru naa ko parce que jàpp booy def boo nekkee njiitu réew da ngaa war a tëdd njaaxaanaay ki la compte ak ki ànd ak yow yëpp yaay seen président mais li ma jàpp man mooy presse bi même si ne am nañu ànd ci nguur gi ak ñu ànd ci nguur gi dès l'instant que l'autre ñaari parti yi am na xam nga lu doon danger bi bi mooy ñu ne presse bi yëpp président Macky Sall lañ àndal mais bu fekkente ne am na presse boo xam ne seen ligne wane na ne faruñu fenn ak ligne boo xam ne dañoo far ak moom. ak ligne boo xam ne dañ koo compte loolu bu xasee am rek pour man kon askan wi am nañ fu ñu jooyee liñ bëgg a kon nag man jàpp naa ni li li li li li enjeu bi mooy na askan wi taxaw fi mu war a taxaw xeex li mu war a xeex journaliste yi ko war a couvrir dañ ko couvrir ah ñi nga xam ne war nañ cee àddu bu boobaa ñooñu ñuy xaar ci kilifa diine yi buñ ca yeggee nag bu boobaa la seen rôle di am importance. d'accord parce que ñooñ buñ demee ba réew mi nar a yàqu. daan yëkkati seen kàddu. d'accord waaye nag comme dara xewul. lépp a ngeen teg bu ñu bëggee kilifa diine yi xeexal ñu ko. loolu duñ ko def parce que lool du seen rôle. d'accord donc man li ma gëm mooy sénégalais ñoo war a taxaw feen war a taxaw. d'accord léegi suñu mujjantalu laaj bokk na ci li nga xam ne tey moom mooy euh, euh, coowul mbirum euh, mbirum. ngóor jigéen wala mbirum lesbienne gi nga xam ne dañu wax ne UNESCO ñoom dañu bëgg mu bokk ci suñuy programme président Macky Sall lim ci wax dégg nga ko nee na loolu kenn sañu ko te kenn mënu leen ko imposé tontam boobu yow euh, lan moo ci sa xalaat. mais tontom bi <laughs> man doyuma xam nga ko tontom bi doyuma mooy que ne d' abord damay départ ci président Macky Sall position yi mu ci am président Obama moo fi njëkk a ñëw wax waxum ngóor jigéen ànd ak ay journalistes moom président Macky Sall ne ko le Sénégal n' pas encore prêt gis nga réponse booba. man laa jàpp ni moom la yore ba léegi parce que réponse boobu man dama caa rusoon contrairement lii ñi ngay wax yenn presse ko jege ni ñu ko doon jéem a naan voilà président a montré à Obama qu'il est man leen lan mooy courage li le Sénégal n'est pas encore prêt kay mooy may leen ñu tax xëy na buñ ca yeggee daan ko def <laughs> loolu kay mooy ñun rejeté wuñ ko waaye instant bii mënagul a sotti waaw ñu ñëwaat euh, premier ministre canadien ñëw fi bi mu ñëwee. président Macky Sall boobu quand même position boobu gën na tranché tuuti waaw mu ne ko ñun suñuy aada ak suñuy cosaan may ñu def loolu donc et cetera et cetera donc foofu quand même mën nañoo wax ne au moins am na benn position bu gën a ferme bu mu wone mais bi ñu paree ci loolu lu xew. Euh, avant avant ñuy pare parce que président canadien bi mu ñëw dafa fekk waxtaan yi indi coow lii booba door na xam nga ministre de l'éducation li mu wax keroog sénégalais dama dama ne sénégalais yi bu ñu bu ñu bu ñu nekk ay dof askan wi daañu nekk ay góor jigéen. loolu la UNESCO xalaat léegi nag xalaat boobu mu xalaat la sénégalais yi ne ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg léegi nag du fi amee tey du fi amee ëllëg loolu nag ñu ngi wax sénégalais yi ni leen bu leen gars yi danoo yolomal ngembali waaye tekkiwuñ ko de seen tool nii bis bu ñu amee beneen yoon bu ñu ko jaaree daan ko fa jéem a jaaree mais bii moom moom yàqu na moom bii moom ba ci coow lu jógee man mii ma bokk ci ñu ko reeteet ba ñëpp yëg ko fi mu toll nii ñëpp ñëpp ñi xam ñu ngi ci réew mi d'accord nañ ni loolu ñu loolu ñu bëgg def noonu moom du yombe noon ci ñoom parce que réew mi du ci d'accord mais nag nañ taxaw nag di leen surveiller parce que ñeme noonu jaar ci beneen yoon parce que dégg naa euh, far naa ci weewu bay ñu ki fi nekkal UNESCO mer na moo tax boo xoolee président Macky Sall sax mi ngi naan buñ bëggee seen xaalis nañ ko téye ah, kon xaalis a ngi biir mbir mi xaalis boobu nag mooy coow li UNESCO dina téye xaalisam pour napp Sénégal Euh, te UNESCO su ma koy wax mooy partenaire technique et financier yëpp ak ñi nga xam ñoo nekk seen ginnaaw parce que ne xam na ni LGBT yi ñoom ñoo contrôler le monde alal ji dox ci àdduna bi ñoom ñoo ko yore seen loxo ñoo contrôler la finance mondiale dinañ teg pression Sénégal man maa la wax li jàppal li ma lay wax dinañ teg pression Sénégal pour mu dugal njàngum góor jigéen ci biir njàng parce que réew yu bëri actuellement accepté nañ ko maintenant nag ñun Sénégal daañu ci keccat le Sénégal sera parmi les pays yi nga xam ne exception la ñuy doon. ci seen programme boobu ñu bëgg a tëral tuddee ko. kon les principes directeurs. de l' introduction de l' éducation sexuelle complète loolu noonu la ñu tuddee document bi. d' accord c' est un pages boo xam ne imposé ko àdduna bi ñu ëpp Sénégal am na ñoo xam démarré nañ ko depuis 4 ans ñii 3 ans ñii 2 ans am na ñoo ne ren réew yoo xam ren lañ ren lañ ko appliqué dañu ñëwoon Sénégal dina ci bokk. léegi nag ñoom ils ont un agenda l' agenda c' est 2030 dañoo bëgg d' ici 2030 bi ñëpp nekk ay góor jigéen wala ñu toléré góor jigéen maanaam ku ko nekkul tamit ki nekk góor jigéen dootula la déranger di nga nangoo nekk ak moom di nekk moom ci fa ngay liggéeyee di nekk moom ci biir stade bi di nekk moom ci biir fu ngeen mën a daje te doo ko joxañ baaraam tuuma lool lañ bëgg lawal ci àdduna bi te nee nañ agenda bi 2030 la kon nag ñun nan taxaw laxasaayu ndax dañoo am suñuy aada am suñuy cosaan am suñuy diine ñun Sénégal waruñoo nangu mukk kenn du ñu andi lëf caaxaan yooyu di ko andi ci suñu réew. d'accord kon yow daal gëm nga ne président Macky Sall yéegoon na ko gëm nga tamit ne bëggoon nañ koo def ci réew mi. effectivement loolu laa gëm le président Macky Sall yéegoon na ko parce que waxtaan wi du benn fan kese nee naa ay waxtaan yu bari la mën naa leen a jox date yi am na ci boo xam ne ñu ngi ko defee à l'hôtel Radisson Blu Radisson Blu lañ ko defee 2014 2014 du 18 au 20 novembre 2014 def nañ benn atelier. sur la santé de la reproduction maintenant comme ni ñu ko tuddee tamit ñoom ñoom ñoom toujours santé de la reproduction lañ koy tuddee bañ mu fés parce que santé de la reproduction mën nga caa dëxañ loo bëgg a mais boo demee ca ca ca document ba la cay nekk mooy éducation sexuelle complète et éducation sexuelle boobu tamit la ñuy dëxañ ca biir mooy ñu fexe ba ñu ñu daganal euh, ngóor jigéen ci biir école bi donc loolu mooy li nga xam ñu ngi koy waxtaane Sénégal depuis des années 2014 boobu c'est la même chose que 2016 bi tamit donc boo ci jël rek moom eh, ay waxtaan yu leer la yoo xam ne dañ doon waxtaanee mbir moomu yaa may dégg. parce que su ma jëlee su ma jëlee waxtaan wa ma nga amoon du vingt 26 au 30 septembre 2016 moom la ñu waxtaanee woon euh, la santé de la reproduction créer li ñuy tuddee parc parc mooy projet d'appui au renouveau des curricula maanaam soppi ni ñuy jàngale xale yi ci Sénégal. pour dugal ci yooyu nga xam moom lañ bëgg a dugal muy éducation sexuelle complète bi loolu mooy dëgg kon nag du lu bees président la république mën nga gëm ni lu mel noon dina am Sénégal depuis juróom-benni at ñu koy waxtaane wala juróom-ñetti at ñu koy waxtaane te moom toujours lël yi ñu koy def ministre éducation di ñëw conseil des ministres di ko rendre compte te moom mënu yëgu ko kon kay loolu bi la mu ca waroon teg mooy dama koy dàq. dama koy dàq loolu la ca waroon teg maanaam lii bu ñu ko mënee def sama réew. Ah. comme ni mu ko waxee ñu àndul ak suñu aada ak suñu cosaan ñu bëgg fi indi ministre bi ko fi def nga xam ne convocation yi moom moo ko signé kon kay lam ca waroon daftal mooy dama koy dàq. mais non il faut président Macky Sall moom ministre éducation nationale yëpp li ñu wax sénégalais yi c'est pour sëlëm leen li ñu wax loolu. jërëjëf li am mooy bëggoon nañ ko waaye comme mbir mi dañ ko reeteet coow li jóg. sénégalais yi ànduñ ci ñu daal di dellu ginnaaw di xool beneen yoon ñoom ak UNESCO. mais man li ma jàpp mooy njàngum sëy moo matale ak dugal programme LGBT ci sunu njàng mi loolu objectif la boo xam am am nañ doole am nañ seen alal te dinañ def yeneen pexe pour mu dugg. maintenant nag ñun sénégalais yi des na ci ñun bu ñu taxawee sunu taxawaay bi ñu war a taxaw surtout ñun jàngalekat yi xam nga ñoom mënuñu ko fee indi tey euh, te jàngalekat yi ànduñ ci parce que jàngalekat ñoo koy jàngale. léegi nag ñun nañ ci taxaw sunu taxawaay ñun askan wi yëpp rek ànd ak jàngalekat yi comme jàngalekat yi d'accorduñ bu ko defee. wax dëgg yàlla li ñu bëgg a euh, def ci sunum réew euh, ñu fexe ba dootu am te ñun dafa am sax luñ ci toftal mbir mi duñu yam rek ci ni d'accord xam luñ bëgg li ñu bëgg mooy comme ñoom dañoo bëgg a yàq suñuy tuut tànk jàngal leen yëfi caaxaan nañ profitoo donc defar sunu suñuy tuut tànk mooy lan 2014 dañoo waxtaane woon ci assise de l'éducation et de la formation yi ni dañuy dugal njàngum diine ci biir njàng mi musulman yi ak chrétiens yi ku ci nekk ñu jàngal la sa diine ñu jàngal euh, musulman yi alxuraan jàngal leen morale religieuse defal chrétien aussi catéchèse bu nag jàngal leen seen morale religieuse donc ñun dañoo am suñuy diine ñun Sénégal ay musulman lañ ak ay chrétien waaw loolu la ñu waxtaane woon ci assise de l' éducation et de la formation en 2014 président Macky Sall moo ko jiite woon bañ koy tëj loola ñu fa waxtaane woon ba léegi nii ñemewuñ koo doxal léegi nag dafa jot pour ñu doxal ko maanaam ñu dugal au lieu d'introduire ces saletés dans notre éducation, qu'on veut nous imposer les LGBT, ah. ñu introduire l'éducation religieuse dans notre école ñun loolu lañ demandé. jërëjëf bu ko defee loolu mooy andi ñu aar suñuy xale ba képp ku leen bëgg a këf dugal leen ci ceefu caaxaan doo ko mën a réussir. jërëjëf euh, macha allah waxtu wi jeex na ñoo ngi lay sant di la gërëm. waa mais man tamit maa ngi lay sant di la gërëm euh, Abdou Khadre di euh, kontaan toujours di ñëw waxtaan ak yéen réew mi nga xam ne ay sujet yu am solo ngeen di aborder te ñu moytu bi jéem a andi benn vaccin de parce que loolu ma ci mais loolu man dama am sama sama collectif ma créé tuddee ko non au vaccin ñu fexe ba vaccin yi ñuy dégg bu ci kenn jël benn risque di dem di vacciner wu parce que vaccin yi wóorul système de bi ñu ko créé lu bees la mu sam ci àdduna mooy utiliser euh, ARN messager nga xam ne day dugg ci ADN nit ki kooku mos ñu koo def sax ci ay mala ba koy def ci ay nit kon bu kenn jël risque. di dem di jéem a vacciné wu ci vaccin yooyu parce que parax parax moo ci am te ñoom ñëpp ku ci nekk yaay naan sa bos moo gën sa bos moroom te benn laboratoire nangu cee jël engagement ne effet secondaire yi dina ko assumer kon nag ñi nga wax sénégalais yi nan tey ci vaccin bi ba ah, vaccin bu mu ci mën a doon. képp ku ci jël risque yaa ngi wisaare sa sa wér-gu-yaram jërë ngeen jëf sunu mbokku internautes yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci Bawal Info TV yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew mbokk yi nag xam ngeen ne atum deux mille vingt et un ma ngi waaj a jeex ñuy waaj a dugg ci deux mille vingt deux ñuy ñaan bu baax a baax. atum 2022 nekk at moo xam ne atum naataange lay doon atum mbégte at moo xam ne ñëpp dañuy am jàmm at moo xam ne ñëpp dañuy am xéewal gu saawaan baawaan ñu koy ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ñooy sunu mbokk internautes yi nekk ci biir réew mi ak nekk bitim réew di ñu topp ci Bawal Info TV mbokki nag bu loolu jàllee dañu leen di defal li nga xam ne moom mooy rétro 2021 émission yi nga xam ne def nañ ko ci deux mille vingt et un bi euh, ci biir atum deux mille vingt et un bi yëpp dañ leen koy tegalaat defal leen genre rediffusion maanaam rétro euh, émission yooyu lañ leen di tegal su ko defee ngeen mën a comprendre xam ne du émission bu bees waaye émission yi ñu def ci deux mille vingt et un bi dañ leen koy tegal benn par benn jërë ngeen jëf woy leen di ànd ak Bawal Info TV.